gis naa ay show bind statut di dugal lu leen neex xoolal dama bëgg suba tumaani wala ginnaaw suba nga yóbbu ma seen kër kenn par kenn ma ubbi seen lëfal ndey bañ xoolee benn bët parce que Seydina Mouhamed nag daw ma ci yoole daw ma ci dara billaahi eh on est bien préparé le premier ba le trente di kat seen ndey xam nga ne mett métti na dina mel ni accident wu banaana yéen ñi ko def préparez vous parce que dinañ leen def lu tepp lëfal ndey def leen ba barki alxuraanul karim ba xam nga ma sa barki Seydina Muhammad booy déggoo ma de man miy def di katande di flam kon yii nii kattuma neem yëngal billaahi te show bu ma message dinaa dugal lay sa lëf bi ak sa taatee def ko ndey pp whatsapp instagram fépp billaahi maa leen gën a raakaaju gis naa ay show di bind statut di dugal lu leen neex xoolal dama bëgg suba tumaani wala ginnaaw suba nga yóbbu ma seen kër kenn par kenn ma ubbi seen lëfal ndey bañ xoolee benn bët parce que Seydina Mouhamed nag daw ma ci yoole daw ma ci dara billaahi eh oh, on est là bien préparé le premier ba trente di kat ndey xam nga ne loolu métti na dina mel ni accident banaana yéen ñi ko def préparez-vous parce que dinañ leen def lu tépp lëfal ndey def leen lu dara jarul nag barki alxuraanul karim ba xam nga ma sa barki Seydina Mouhamed booy déggoo ma de man miy def di katande lam kon yii nii kattuma ndeem yëngal billaahi te show bu ma message dina dugal lay sa lëf bi ak sa taat yi def kon ndey pp whatsapp instagram fépp billaahi maa leen gën a raakaaju